mais li gën a waral nag ñu ñëw fii mooy 4 octobre journée mondiale des animaux bi ñu jagleel jur gi yàgg nañ koy def depuis 1931 mais yegg si doon ci suñu xel yi ñun ñi nga xamante ne yàgg nañoo yor jur ci suñu maam yeeg ba fii ñu ñëw tey ñu wax ne comme dañ ko doon def fan at yi passé di ko doon def département Bambey to bu ñu koy def département Bambey nga xam ne suñ waree defar feetul fas yi ak mbaam yi foofu rawatina nag département Mbacké bi nga xamante ne nii soo jëlee commune Mbacké ak commune Touba soo boolee mala yi nekk presque région Diourbel ñaari communes yooyu ñoo bëgg ëpp mala yi nga xamante ne ñooy liggéey li nga xam ne gën a am koom-koom ci njëriñ ci région Diourbel ci koom-koom ñu ne comme noonu la lii dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo la suñu naataanga yi nekk foofu mën naa am yëguñu ko woon xamuñu ko ñu ne nañuy déplacé wu ñëw waxtaan ak ñoom ñu jàpple ñu ñu ñëw defe ko fii ci nga xamante ne mooy commune Mbacké ak commune Touba di ci am mbégte wu parce que bés la boo xamante ne nii day wone ne jur gi nekkul ne mënuñoo wax mënuñoo ki mënuñoo uh, wax mënuñoo defal seen bopp dara mais nag bokk nañ ci société bi bokk nañ ci li nga xamante ne mooy doxal adduna bi ñoom nag suñ mënoon wax nañ xel di feetul seen bopp parce que nit ñi ko euh, jeunes yi dañuy feetu seen seen bés journée modial de la jeunesse day am femmes yi dañuy feetul suñu bopp travailleurs yi dañuy feetul suñu bopp retraités yi dañuy feetul suñu bopp seen i bopp léegi nag moom ñooñu yëpp dañuy feetal suñu bopp nag ñoom jur gi aussi comme amuñu mënuñoo feetal suñu bopp ñi nga xam te ñoo bay seen xel ci jur gi di leen jëriñoo mën nañoo wax ne journée bii nag nañ ko jagleel jur gi ci 360 cinq jours yi nekk ci bésu ki année bi ñun jël ci benn bés rek jagleel ko jur gi. la bu nga xam ne wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu toll ñu mën a toppatoo jur lañ yaakaar naa raw nañ ci toppatoo jur ci Sénégal parce que fii da nga fi gis mbaam yoo xam ne nii ak fas yoo xam ne boo demee feneen doo ko gis loolu moom yàlla dogal na jàmbaar lañ ci. xanaa gën leen a soññ rek ñu gën a góorgóorlu journée bi nga xam ne moom lañ jagleel mala xëy na ñu bari fii xamuñu ko woon comme commencé nañ ko tey bu ñu ko fekkee incha allah ñun suñ bopp dañu koy jëlal suñ bopp. anaa di fàttali nag ministre de l'élevage am na lu ko war fii ci dëkk bi parce que maa ngi fàttaliku bu yàggul Aminata Mbengue Ndiaye ñëwoon na fii ci Touba may ñu surne élevage ñetti fan. président de la république jóg may ñu cinquante tonnes ripaas kon ministre boobu mënuñu woon lu may gërëm ko sant ko ministre bii nag bi yàlla dogalee mu falu ak tey jii defe naa dajewul ak ñun. trente mille sareet nag duy caaxaan ku leen desal ginnaaw yaakaar naa boo nee da ngay toppatoo mala sa mbir jar naa seetaat en tout cas waa Touba moom ñun jóg ñun ñun ci suñu bopp ak suñu moyen bopp fas yéene dimbale fas yi ci liñ mënul ay vétérinaire ñu leen di faj di leen toppatoo bu baax ñu ngi ci woon waaye dañ koy gën a yokk ñun dañ cee am cër bu rëy parce que ñi ëpp ci garage si am na ci ñoo xam ne tey benn ndaw bëgguñu ko di jox seen jur parce que xam nañ ne ndaw bu amul 18 ans daa war a jàngi moo xam alxuraan wala français wala dem ci école yi mais métier sax waru koo jàng xale kenn du ko liggéeyloo loolu nag ñi ngi ciy xeex ñi ngi ci woon ndaka jekk mais bëgg nañ ku ñu ci dimbale ñu gën cee taxaw pour ndaw ñi moom bàyyi sareet yi mag ñi des ci parce que sareet dafa nekk teraanga boo xam ne tey ñun ñi taxaw fii lu ñu am ci àdduna ci sareet lañ ko am te gaa yi turu ne ak lu ne am nañ ko te sareet leen ko may defe naa boo tuddee sareet boo duggee Touba rek sa dem ci kenn ku may ñun ñii kon nag dañuy wax ndaw ñu gën a ndawee ñu dem dafi leneen bàyyi sareet mag ñi mag ñi ñu gën a góorgóorlu toppatoo fas yi parce que fas mbaam lu am njëriñ la ci Touba surtout transport bi lu ci am njëriñ la boo ko xaajoon ñett ñaari yëpp foofu la nekk vraiment kontaan nañ bu baax a baax ndaw ñi moom nañ jéem a bàyyi sareet yi ñi nga xam ne seen aas àggu ci lu mel ni carte conseil itam ñu ngi ci di ci dox suñuy jéego te fas nañ ko yéene taxawal autorité locale yi nag ah ñoo ngi leen di soññ waaw ñu jàpp ci bu baax a baax muy ci bu dee ci préfet la bu dee ci mairie bi la bu dee ci ñi fi ne ñëpp sous préfet loolu vraiment même police ak gendarmerie ñu ngi ciy def mais ñu gën cee góorgóorlu ndaw yi moom faruñu leen ci benn côté. am nay jafe-jafe sant nañ ci am na ñenn ñu ñu ci sant mais am na lu des lu des loolu nag ñun ñu ngi ciy taxaw ñun ñoo koy xeexal suñu bopp incha allah li des mooy am na tali yoo xam ne tey dañu bëgg sareet yi aw ci. mais borom sareet yi sasuñu ne ñoom ci tali la ñëw mais nañ leen defaral yoonu suuf yi mooy li ma wax ci autorité bi parce que yoonu suuf mairie moo war a taxaw tracé ko luñ fa teg mu teggi ko teg na le bi mën faa aw waaye ñun mënu luñ ko suñ bopp